di nuyu Soxna Ndiaye di nuyu madame Faye yi toog foofu yëpp bëgguma lim waaye première dame mi ñuy décoré tey àdduna bi yëpp noo ko war a décoré man de du Ndiaye Mbege ba ma la xamee xam sa borom kër ci laa ci laa xam ci laa bàyyi location ci laa bàyyi location kenn du yow am nga yar am nga diine jàng nga alxuraan. loo am yaa ngi koy bokk doomu aadama yi soxna Ndiaye di nuyu première caissière en l'Assemblée Aminata Gueye sama jigéen sama xarit waaye maa ngi gërëm Mansour Faye mi nga xamee ni moom bàyyiwuma benn yoon la première dame man nag du Ndiaye Mbengue dinaa la sargal mais maa ngi lay sargal incha allah ci mois de mars bi au Joslem 5 sama kër yaay yow première dame bëgg naa nag invité naa waa Ndar yëpp. jigéenu ndar yëpp nu ñëw wuy si ma ma sargal la balaa ngaa dem ndax yow kenn dayulu ci yow on y va merci de de votre confiance pour conduire notre pays vers de nouvelles attitudes de paix de démocratie de prospérité alpulaar ak séeréer yi déglu leen ma tey laa leen di woyal président Macky Sall مني président Macky yàlla nan ko yàlla fayal dama ni président Macky Sall kenn mënu fay yàlla nanu ko yàlla fayal fayal nu première dame di gërëm nag ñépp jërëjëf du Ndiaye Meng waaye monsieur le maire da ñu baax da nga ànd ak le département da nga ànd Paal le maire de mu def une forte mobilisation nga ànd ak ki nga xam ni mooy Ibrahima Diaw le maire de Fass Ngom mu ànd lu mu am ñëw ci bisu première dame nga ànd ki nu naan Alpha Diop le lu mu am ñëw na ci bis bi waaye nga ànd ak Papa Ndiaga Fall lu mu am ñëw na ci bis bi laa liyoon fàccam doomu gàndar bu mag bi ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax ñoo ngi nuyu Kontu Thiam mi dimbali jeunesse bi dimbali jigéen ñi vive Kontu Thiam léegi nag Bamba Ka léegi nag sama mbokk communicateur yaa nga ko toog Adja Socé Diop bu ndumba daawur soo ko xamul dégg nga ko nday muub di nit ku baax nekk taxaw taxawaay bu rafet ci ndar mi ngi noonu toog bëgguma lim nag waaye Assane Ndiaye nee na ma yow macha allah daf la way way woo xam ni daf la koy yéene mooy waaj dugg léegi Papa Sele dama bëgg nga wax ci turu communicateur nag nu dugal l'enfant chéri de Dakar de ki xam ni mooy Assane Ndiaye. jërëjëf di wax salaamaaleykum Ndar di wax ni tey dañu teral ki nga xam ni mooy la première dame ni dañ koy sargal fii ci Ndar ci dëkk bu mag bii di Ndar géej waaye ma wax ni ñu sargal ko fi ñu ko war a sargale fii nga xam ni fi la juddoo fi la yaroo fi la màgge waaye fii la fekk baax ma wax ni damay faral di wax ni li dale ci André Guillabert ba fii ñu toll Mansour Faye li mu def ci meeru Ndar kenn mosu ko def mooy médecin de maire dama wax ni ki ba maxtal yi ki taal lamp yi ki ni Ndar na leer naññ mu leer naññ mu ni na set wecc mu set wecc kooku mooy la maire Mouhamadou Mansour waaye ma wax ni ñoo ngi nuyu honorable député Aminata Gueye la première caissière de l'Assemblée nationale waaye maa ngi nuyu ajalatu Khady Fall bu Ngalal di nuyu Jean Seck bu Ngalal di Bamba Fall bu Ngalal di wax ni maa ngi nuyu Ousmane Diallo def na une forte délégation borom Medina Daaru ñëw ak forte délégation muy si première dame waaye Assane ma wax ni tey ji tey la tey waaye suba la nettali bi jërëjëf. merci Pape Sélé aussi di remercier la COJER la jeunesse de COJER madame Amar aussi di ko remercier Thiat Silla wante lu nu fàng ne kenn du ko jeex Assane un grand monsieur un grand reporter ba mu jàppee ba tey bàyyiwul Assane mention spéciale à toi tu fais un travail remarquable kon nag on va donner l'occasion am Jogomaay un grand communicateur traditionnel mu joxe partition Jogonaay waxal waaw kay euh, DJ Prince jërëjëf lii benn caabi oto la bu wadd nee nañu bu borom bu ko bëggee rek na ñëw ci DJ Prince waaye DJ Prince xam nga ku war ñay ba wàcc ko loo warati bu tuuti dama wax ne l'homme de la solution mooy le maire Amadou Mansour Faye l'homme de la situation l'homme de la résolution l'homme des chantiers achevés